on est le 23. on est le 22 mois de septembre. wala octobre takk nañ sama xarit bi. dañoo nekk ci weeru jigéen weeru sargal jigéen weer bu baax boo xamante ne nii ñun léegi dañ ciy xeex muy feebar bi ñu naan octobre rose yàlla dogal sama xarit bi daan ci def lu baax ñu koy invité ci télé muy waxante lu baax di jàppale jigéen ñi nekk une femme battante yàgg bëri doom kii toog nii Kaffrine la jóge bi mu jógee Kaffrine ñëw Ndakaaru dafa takk ndiggam di liggéey fii mu toog ñu ko fi maye titre foncier la moo ko moom bi mu jógee rek Kaffrine ñëw Dakar dafa am jom takk ndiggam mu dëgër di liggéey boolewul dara wax teral ndayam teral baayam am kilifa lool gis nga réew mii lu mu fiy def ay parents am dañ koy assister mu nekk nit ku baax ku ko am jël ku ko ñàkk duutu ko kii mënumaa may lu ma amul li may teral maa ko mën a liggéey am ko sama bopp te àndeew maa ngi ndax gis nga réew mi ku fi bëgg a tegg da ngay takk sa ndigg liggéey parce que réew mi tubaab fakaa la ay wax yoru ko mën ngaa ambiance mën ngaa wax lu baax waaye mënul tax nga faj sa soxla ba tax na gis nga sama waa ji dégg heure ménage tay madame bu ñaari xat jëkkëram na ko Sénégal yëpp yëpp takk dañ jaal bu bëgg jaal caam jaal ma ca ay rek jaal mi neex maa woo mbuuda amina baaba amina sama waa ji gën xalaat ma sin dembaak ngóor xalaat ma sin dembaak ngóor jeeg bu yaru bi jeeg bu baax bi mën ngaa dégg nag heure ménage ci réew mi ñu ne te war nga fee mën a def sa kol ci sa kaw lay te dara la ci fekk bu mhm. xale yëpp la ñuy takk ñu toog léegi Serigne Touba ci kër takk ñu toog ne heure waaye sama rakk ji yow luy am ci réew mi rek tubaab fakaa la day leer parce que noonu nga toll doomu juddu réew ma te doo juddu jëri doo madam taan waalo waalo mm-hmm. fii nga dëkk mm-hmm. kon nag heure dundal nga wér nga fekkee yàlla bàyyi laak sa borom kër dundal sëy sëy ko gën sëy moo gën lépp man maa sëy de Melina ngi ni toog di sëy ko mayee <laughs> tubaab fakaa la laxaat ba tey dafa toog rek concentré wu di sëy waaye yow munaas yaa ngi nii toog tey dég nga madam da koy dégg ça dépend ci mhm. sa njar du lamb te sa njar mi lamb. doo lamb leen njar sa soow du forox mu fanaan. Mhm. du changé góob. Mhm. sa njar mi moo la boo bëggee sëy da ngay sëy. soo bu bees la nga yaru baax bëgg sa nday teral say mbokk moo mën ngaa am lu teralee sa ndey teral sa baay. mën ngaa bëgg à tout moment saa yoo bëggee bëgg da ngay bëgg boo bëggee fo da am ñoo fo parce que ñaan waajur këw la. gàllaaj këw la. gis nga ndey. nday nday ba muy ñetti yoon tubaar fakkaan la ku fexee ba am sa ñaanu waajur loo song di ko daan loo yóotu di ko daan mhm. waaye boo fexee ba sa bàyyi ree mooy bàyyi rek sama waa ji nag tubaar looloo ko moo tax tour du monde bi dañ koy dégg à vie sama waa ji voilà force dañ bi dañ koy dégg mhm. heure ménage la xam nga ni gii tàkk ah ah baa takku la waya waya takku la baa lëppuy de takku la ci réew mi maa fekk li police bëgg kooku maa ko xam. la tatu famem dañoo Modou Mbacké bu bay baayam. ca Abbas as leen taal ta ta tàggalal. waaw ki ko laa ba nga wax ko si njëkk na yaa ngi taxaw ma ne la Mouhamadou Lamine Bouba ko takk. waaw Modou Mbacké bu bay baayam ca Njaareem. waaw ku bëgg a xam Modou Mbacké taxaw ci juutu Njaareem ba boo romb si national cos. waaw boo nee Modou Mbacké laa jëm mooy borom xar yi mooy borom nag yi. di servir nag hôpital yi di servir na clinique gis nga naar ba yóbbu woon Serigne Touba ba mu génnee àdduna ñu teg ko sa otom ba mooy ñoom ya euh, nu mu tuddati naar yi dëkk jaari naar yi ba yum di xoolal ñooñu Modou Mbacké leen di jox nuy lekk Modou Mbacké di jox nuy naan Mouhamadou Lamine Bara mi nga xam ne moo lay denc tey jii jàng sëriñ kër Serigne Mor Mbaye Cissé alxuraan sa maami jëkkër nag ñoo ci karoon rek Serigne Touba ca njaareem ak waa kër Serigne Mor Mbaye Cissé ak waa kër euh, euh, Serigne Mor kii sëriñ Mbaye Sarr yow kenn du la laajte sa jëkkër ji ca njaaram kenn nattable wu ko dama ne ba nu vibra bi àll yi socca tokk toon te bala nga naan socca ndokk sama kër da ngay léegi naa di ma dem a ba maa ñoom daaru tëdd fa ba suba sa yaay defaral nu ndékki nu fekk ko ci sambara poussé bu mu ne at mu jot mu jëndal ma sambara poussé la sa baay ne sama kër a nga ne ñuy defar pare dëgg la may mun a kon yow lan ngay lan lan ngay pourwee ci problème bi lan la sa lomotif kenn mënu koo génne doo fumeur doo buveur jëloo sa xaru xaal bi rek étalé ko ci almadi bi tali Dakar xale ku ci liggéey dina am lu baax ku ci liggéey doo am dara doo am dara ay xale ngeen ñun nag suñuy wàllu wéy nag nag ñi ngi sandatant di xaar laa moom ndax ay mag la euh, reménage bu xale yëpp koy dégg toog ci kaw lal def kol bu weex euh, reménage waay yaa ngi soog am jëkkër jëkkër na sant bu maanoo ray ndaayam jëkkër jëkkër na sant mbuub mbaa ñu rey ndeyam Mouhamadou Lamine am nga jabar am nga jabar am nga jabar ko ka jabar ay ka ko doo fumeur doo doo ko ba yàqu ay may doo sant mbuub doo du la saaga yaay. ay ñëw ñoo ko teg fii ci kaw lal bi di ko wàññi. waaw maay sama doom jaa ngi ni dara sëtum Alassane Ngom beeg jëmm Ngom. waaw xale bi marqué empreinte am ci réew mi nag. yow baa ngi ci buntu kër gi nu baax si démb la ñëw. ak waru gar yi mu la bari jox la. kii xoolul loo am. doomi Modou Mbacke ji. xoolal da ngaa pare mu pare. maa ñëwul di xool li menace am xale yi. xoolul li nga am dépense bu doy doy jox. waaw xam nga ne bàyyi Lamine Bara kenn du ko jëndal xorom këram. Modou Mbacké kenn du ko jëndal xorom këram dépense lay joxe ndax loolu la. góor gi des fois ñu buddi rek ñëw di xool. taxawaalu wuñu ci Ndakaaru ba yàqu. taxaw ci angal yi wax ba yàqu. dugg Facebook xool sa compte waaw. di lemmi oto di dugg ci appartement yu nit. Facebook la ñuy dugg. waaye xale. ana Paris. ana Paris ani lay ani jamaay dañuy dem dugg sa compte Facebook. topp la di la xool di la xool di la xool. bu ñu paree ñëw dajale takk la bu ñu paree bu toogee tuuti naan la ana seen yi guddi nga daan takk ana seen yi bu ñu laajee seen yi ba ci yàgg naan la ana këyitu kër gi <laughs> naan la ana oto yi xale góor na ma luy xale góor